vision.com la crédibilité notre credo. Senevision.com wóor Togo. C'est une Senevision.com kumpa. tàggoo nag fédération daaira Maam Cheikh Ibrahima Fall bi nekkee ci diwaan bu Italie daal di jël addiya ji toll ci benn million daal di koy jagleel daaira Jasbul Murit ngir ñu tàbbal leen ko ci liggéeyub daare Maam Cheikh Ibrahima Fall di nekkee ci Touba Baye Fall gii te ay ndongo yu takku nekk fa di fa wattu alxuraanul karim ndax barab bi barab la boo xam ne kenn ku nekk dañ caa a def ndax ñi nga xam ne ñoo ko taxawu ay sët lañ waaye seenu ñaq moo taxawal barab bi kon nag taalibe yi nga xam ne ñoom dañoo def ñoo jëbbal seen bopp sëriñ bi kon jàpp naa ne ñoom seen ñaq war na caa dem loolu moo waral suñ jotaay bii eh, Touba Italie ñëw ànd ak mbooloo mi nga xam ne ñoom lañ baaxoo ànd ak suñu liggéey ci bi liggéey bi bii na ñëw indi fi indi fi liggéey bi at mu njëkk mi su ma juumut ay 350 su ma juumut loolu lañ indi woon daaw 655 mille lañ indi woon ren ñi ngi indi 1 million at mu jot kon mel na ne ñi ngi yokk suñu liggéey rek yemul ci lii rek ndax eh, gannaaw bu ñu jógee fi bëgg ñoo dem Mbacke ci liggéey waye buñ fu joggé war nañu dem Mbacké Bawol ci stade ba moy bee ñuy liggéeyal sëriñ bi moom yobbu fa 2 millions 200 mille war nañu fa yobbu momit université sëriñ Muntaxa bi war nañu fa yobbu 655 bolé ko ak liñ joxé addiye tay moy 23 millions mbolo mo nosu lañ waye nosu gi li ci gëna yé moy mooy ko suñu wax dañuy genn kaddu jëf ji ya ñi ko amal ginnaw ñaar fukki millions ak ñett ñu jébbal khalif général des Baye Fall waaye addiyey ben million bi ñu jaglél daara ji ya sëriñ Modou Fall mu sëriñ Amdi Yassine ñu jité liggéey bi ya di rafetlu taxawayu kurel gi jëf jure ji nga xamné ne nañ ko fi mu toll ci un million te dañuy daan ko jëf lu passé ñeenti at ci ginnaaw jëm juróom at mu jot ñu ànd ak sëñ jëwriñ ju baax ji sëñ Saliou Ndiaye ak mbooleem euh, ñin bokk kal liggéey bi te nekk ca Touba Italie ñu indi fii addi ci daara maam Cheikh Ibrahima Fall yi duñ mën a def du dul di leen sant di leen gërëm te di leen ñaanal a borom gën a yokk euh, wér gi ak man gi ak ak kattan gi ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouride yoon wi ñu wane nag dañoo bëgg mboolem daayira boo xam ne nii dafa sosoo ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouride diina jëf ju tedd ji nga xam ne ñoom daayira Italie bi ñu ngi koy def ñu fédération maam Cheikh Ibrahima Fall bi ñu bëgg nag ngeen ñu roy leen ci lool yi ndax daara jii kat day daara joo xam ne nii ay njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo fi nekk tey lépp lu fi war tamit ñun taalibe la war ñoo leen war a saytu ñoo leen war a faj lépp lu nekk ñoom rek ñun ñun la war rawatina muy daara joo xam dañ fiy jàngal alxuraan ak di fi tërbiya xale yi. sant sëñ Modou jëwriñ di sant bu baax saali Saliou Ndiaye di wax ne kon nag woote baa ngi noonu ñëpp dégg nañ ko. mooy liggéey la boo xam ni daal kenn ku ci nekk am na lu la ci war ndax Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall la ñuy liggéeyal. te kenn ku ci nekk am ci wàll kon nag nañ ci pëseefu bu baax a baax. fa la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah. senevision point com kumpa tàggoo na gi